action biñu def Saint-Louis keroog dañ ko def parce que euh, c'était un moment pour nous parce que amoon na événement bu xewoon à à Saint-Louis et que féministes yu bëri tassé won nañ fa de manière spontanée ñu def suñu sitting avec des euh, ak ak ak yoo dañ ko utiliser muy lu symbolique parce que japp naa actuellement Sénégal jigen bu nekk say bo xëyee war nga mëna xol sa armoire ndax am def nga fa sa 7 mètres par 4 parce que chaque jour que je fais mën nga nekk jigen bi ñi ray té ki lay ray moy ki nga xamante yow ci nga ci kooku lañ ni buñ bu nekkee sa jëkkër la dañ naan moom lañ la dénk fii Sénégal dañ naan moo la war a yiir moo la war a euh, moo la war a euh, sàmm jigéen ñooñu ñuy rey yi fi am ñëpp xale bi am 19 ans jëkkëram moo ko rey am 17 jëkkëram moo ko rey donc du nit koo xamante ne xamu ko wala ñu ne dañ ko agressé dafa doxi woon ñu agressé ko wala dara donc argument wu loo fa soloon loo doon def amatul mënatul taxaw en fait donc dañu jëloon 7 mètres percale bobu noonu ngeen gissone ñu lal ko pour rappeler jigen ñi ni tey jii jigéen bu nek war nga mëna jënd sa 7 mètres percale yemuñu ci 7 mètres percale de dañ def 7 mètres percale ba paré jënd euh, parfum bi nga xamantane mom lañuy la ñuy parfumé néew parce que ñun dañu wara paré pare pare parce que à tout moment nit jigen mën nañ ko ray li tax ñuy wax féminicide moy jigen ñi lañuy ray depuis ñuy wax kaawu euh, dé yi am ñaata goor la wax ni fi ni ray nañ ko ce n'est pas même ce n'est même pas bien de penser à comparer jigéen wala gor mais li lu lu lu ëpp tour en fait jigéen ni lañuy ray rey te ñi leen di ray dañ leen di xam ay gor lañu duñu ay jigéen yu ray jigéen ay gor barki Dembo Ndiaye la gis benn vidéo bo xamantane je pense que la vidéo est devenue très vite vitale rival euh, viral. Ben xale da ngay xol xamni ki xalé la

mo amul valeur buñ la ñu da nga wara a muñ sa la droit parce que bo bo bo solee ay carax bu bu bu doom maggé nga talon c'est-à-dire des choses yo amul importance tant que vous ci ci ci ci sëy ba rek yow matalo donc Sénégal nekk fi ak dé moy comme ñom goor ñi ñu xey sangu sans problème et loolu lañuy ñuy li gën a metti nit ñi mooy li ma doon wax gën ñoo metti mooy suñu autorité yi dëkk ci dëkk bii di fi fanaan di fi yeew ak ñun dañoo mel ni xamuñu lu xew ñëpp ni bat féministes yi di wax ñu naan féministes yaa ngay wax féministes yi dañuy wax parce que xam nañ ni ñoom ay jigéen lañu seen bakkan mu ngi ci xottu gerte dañuy wax tamit parce que dañuy inquiété wu si ñeneen jigéen ñi seen ay sœur ak seen ay seen ay mënuñu nag xëy suba chaque jour que je fais journaux yi di wax politique soo demee ci tele yi émission yi politique politique politique dund bi cher na politique politique ñuy rey jigéen ñi ñu naan ax ah, garaawul c'est pas grave ñëpp ni tekk mel ni kenn xamul lu xew mel ni nit ñi du ay nit lañuy ray en fait c'est-à-dire que même si nit ci bopam mo amatul jigen je vais dire mo amatul ben importance ben valeur ci bir Sénégal et c'est déplorable et nous demandons au président de la République de prendre des décisions des mesures des, mesures fortes et urgentes pour taxaw ci parce que ñun naruñu sétane jug nañu ba pare te duñ togat naruñu sétane di continuer ni ñu ñuy ray comme ay weñ fait, sans euh, pour autant que nit jug ci wala dara dañuy fay info comme nit ñëpp